ay ca mbokk yeeg xarit yi teew teewlu solution TV solution info mbégte la ñuy am comme nuñ ko baaxoo di defee rek euh, àllarba yi di am gan goo xamante ni nii dañu koy dalal gis ko ci penc mi muy def lu am am solo ñu indi ko fii ci solution TV sekk ak moom waxtaan wu yaatoo lool jëm ca la mu yëngu tey nag ginnaaw bu ñu nuyoo mboolem internet yi ñuy suivre dem nañ ba diwaanu Thiès kaay benn dëkk ñaari gaar benn aéroport. nuyu leen ñaanal leen jàmm ñaanal ko nag suñu sëriñ bi sëriñ Sidi mu sëriñ Abdou Lahat Mbacké yàlla suñu borom yàggal ko fi loolu mu ànd ak weer defal ko jàmm defal ko njaboot gi wasaare ko ci ci biir réew mi yëpp nuyu na ñu ñuy seetaan fii ci biir réew mi rawatina nag waa diaspora bi nga xam ne duñu tàyyi benn yoon di suivre ak topp li nga xamante ne nii moom moo di solution TV tey nag dama fi am ko xamante ne nii ku ko xam ku nekk rek xam ko jeunesse bi mu nekk euh, mbëru jeunesse bi euh, affaire da niveau la tey. Euh, dañuy aj niveau yi rek mbaa ñu jaaree fi wàcce ko. non non ñu ngi koy nuyu moom bu Siteu. di la ziar bu baax a baax di rafetlu itam sa teewaay fii ci solution TV damay def rek du dul bàyyi la nga nuyoo kenn tollatu ñu sur wa waaw ginnaaw bi ma sant yàlla julli sant bi di sant sama ñaari waajur di sant waa géejawaay bu baax mm-hmm. di sant waa Tiwaawoon Pël ak ñëpp waaw di sant àdduna daal di bëggee jeunesse bu baax a baax mm-hmm. waaw parce que léegi dëkk bi léegi fu ma génn xam nga jeunesse bi ak ñuy bëggee bu Siteu waa maanaam léegi su may wax dama naan léegi Bou Siteu célébrité la waaw te parce que su ma yoree sama moto munu munatuma daw normalement daal te parce que romb Bou Siteu Bou Siteu xam yi waaw ñoo xam te ne Bou Siteu rek la ñuy bégee daal. Mm. te man affaire yi daal man xaw ma lan la quoi. Mm-hmm. waaw mais maa leen di sant bu baax di leen jox seen wàccuwaay bu baax a baax a baax. Mm. waaw te parce que sénégalais gis naa daal fi ñu ma teg. Mm. diaspora beeg ñëpp. Mm-hmm. waaw di la nuyu bu baax di nuy suma papa Basirou Ka. Mm-hmm. borom Tiwaawoon pour responsable politique Basirou maa ngi koy sant bu baax. North Carolina xam nga diaspora bi maa ngi nuyu ñëpp di nuyu suma benn grand bu baax ñu koy wax door a nekk Sodida. Mhm. waaw Dora grand bu baax maa ngi koy nuyu bu baax a baax a baax di nuyu àdduna daal. di mhm. nuyu kilifa yi ñaanal bu site ñëpp. Mm-hmm. waaw suma papa as ndaw ndukumaan xam nga mm-hmm. waaw moom tamit maa ngi koy sant bu baax a baax a baax di nuyu Adja Tall ndukumaan tey maa ngi koy nuyu bu baax mm-hmm. waa di nuyu daal axlu làmb ñëpp daal àdduna waaw su ma limee damay juumee maa ngi bégee képp kuy bégee bu si dara rek waaw di bégee niveau bi ah waaw sama niveau nag dépassé na yenn niveau yi léegi dépassé na niveau léegi solution lay laaj solution TV waaw <laughs> mi <laughs> ngi noonu jërëjëf affaire de niveau la euh, bu moom kenn ko présenté daanaka Sénégal ak mun naa cee ñëpp ko xam macha allah ci ci ci làmb ji muy def lu am solo yamatu ci mu dem léegi ci king boxing beek yi ni mel yooyu yëpp daañu ci ñëw bu nag bëggoon naa nga expliquer ma tuuti affaire de niveau yow yow yow fan la toll ci yow parce que tout le temps ci sa ay kàddu dama lay dégg ngay wax ni niveau bi dafa kawe niveau bi fan la jóge ba àgg ci kaw ba nga mën tout le temps di ko tudd waaw non niveau bi moom fu mu jigee rek. Hmm. waaw mu nekk loo xam te ni niveau bi xam yàgg na daal. Hmm. yàgg na xam nga depuis presque bu ma jugee sama combat bële su ma du juumul deux mille vingt deux. waaw sama benn combat bi ma jugee woon ma mer xam nga. Hmm. waaw ne bàyyi naa làmb xam nga waaw gëm naa ne niveau bi daal foofu la jugee. foofu la niveau bi yéeg. après ñu aj ma six mois CNG xam nga. waaw mooy loolu léegi bañ ma ajee nag. xam nga sénégalais yi nag ñii ñi nga xam te dañoo bëgg bu Siteu xam nga ñii di ma woo di ma defal teraanga ñii di ma invité seeni bureau xam mhm. ñii di ma recevoir xama mhm, mhm. ku nekk daal niveau bi yéeg ku si mel ni suma papa la job temps yooyu noonu xam nga avant maa ngi moom ñuy tàqalikoo nii xam mu recevoir oon ma may ma un million xam nga maanaam nit ñi yërëmoon ma ak temps yooyu CNG aj ma six mois ma toog bërëb moom ma génn si internet. bi neexoon na ci yow parce que li ngay tudd nii fii si xaalisu la jotoon a jox ak yooyu noonu. waaw bon mooy mooy ma la waxee niveau bi foofu la jugee xam mm. waaw ñi ñi daal di ma defal teraanga xam nga. Mm. diaspora beeg ñëpp Ameth borom noo Carolina xam nga. Mm. waaw ñoom ñëpp tamit si si période boobu si lañ xamante Ameth borom noo Carolina sama xamante moom foofu la jugee quoi. ñi ñi daal yërëm ba nga xam nga. ne ne buusita daal kii du yoon ñu koy aj ndax buusita nu muy bégalee Mm. di ko béggal àdduna xam nga mooy mm. loolu mm. waaw affaire yi yaatu daal ku nekk mm-hmm. waaw niveau bi nag foofu la commencé nag niveau bi commencé yéeg xam nga waaw mooy loolu mooy xam nga rek lu nekk daal di ñëw king boxing bi ku si mel ni Eric Favre dégg ni Bou Siteu dañ koo aj dañ koo aj 6 mois. Mhm. mu jékki-jékki ne léegi du ñëw na léegi léegi wool ma Bou Siteu ma dugal ko ci sama sport king boxing. d' accord dinañu ñëw léegi ci king boxing boobu mais bëggoon nañu xam tuuti nga rappelé ñu Bou Siteu lan moo ko dugal ci làmb ak ban comme année la la la mhm. commencé di di dugg ci làmb ji. bay bëree mm, ba di am ay victoire am mhm. ay défaite itam parce que kuy bëree di daan moom mooy daan. waaw loolu dëgg la moom. waaw mën nag maa ngi dugg ci làmb 2016. 2016 waaw 2016 laa dugg ci làmb xam nga nekk xale bu ndaw dugaloon. lu la lu la poussé ba ba nga dugg ci. waaw muy amul rek ak bëgg-bëgg xam nga. Mm. ak tamit xam nga rek xam nga boo nekkee boo dëkkee géeja waaye dëkk ci banlieue bi xam nga. Mm. waaw moo loolu yàgg gis Sakho Dior di bëre xam nga. Mm-hmm. waaw moo loolu Sakho Dior daal bokk na si lu gën a tax mu dugg ci làmb. Mm. waa Sakajor numéro 2 ndax ñoo bokkoon nekkoon Massa Ndiarème xam nga. waaw waaw di nuyu waa Massa Ndiarème bu baax Sakajor di ko ñaanal yàlla fëgg boppam bu baax a baax a baax. amiin amiin amiin daal gën na tax daal man ma gën a bëgg làmb dugg ci làmb mais nag 2016. ma yàgg mbappat nag mais 2016 laa dugg ci arène. ci arène nationale waaw 2016 d'accord d'accord léegi suñu ñu mënee euh, expliquer waa tuuti ci làmb ji euh, maa ngi koy wax tout bu Siteu daanaka liñ ko mhm. daan bu ñu ko bëggee wañ ni dana mat euh, cinq fois wala six fois. Ah. ban jafe-jafe nga doon am ba parfois soo demee si làmb ji ak lan moo la doon téye ba waral ñi ngay jàkkaarlook ñoom ngay am défaite. waaw noo défaite yi moom si si si at yi nii la rek ay euh, côté ay deux mille sama défaite moom. Hmm. côté deux mille vingt trois la. jàpp hmm. nii nii nii deux mille vingt quatre. Hmm. waaw ndax Bou ku ko xam xam ni Bou Siteu ku yàgg a tegale ay défaite la ay victoire. yàgg a tegale victoire mais da ngay toll benn période boo xamante ne nii xam nga waaw mooy loolu. défaite fii lañ ko fekk ndax ku si ku si mel ni bébé saalum rek. gis nga fan yi nii gars yi ñu ngi koy kii di dugal ay ay gars yi di ko tooy naan taarif xam nga mu ngi nii moom si ay tolof tolof la nekk. maanaam làmb danga nga ciy nekk yenn saa yi nga toll si benn moment boo xam da ngay nekk si tolof tolof. d'accord waaw loolu la rek loolu moo koy indi. Mm. léegi ñu gis ni bu Siteu nee nañ dafa gars yi ñu ngi wax ne da nga bëgg a bàyyi làmb ji ndax làmb ji fay bi. Mm-hmm. baaxul ba mu jaral la nga dévier léegi dem ci king boxing bi parce que jàpp nga ni foofu nee nga niveau bi dafa gën a kawe. parce que ay millions ngay laal. mais foofu par rapport ak euh, làmb ji. waaw mooy mais loolu noonu yëpp sant yàlla ndax man Bou Siteu dama ba may dugg ci làmb man mosuma woon xalaat ne dinaa dugg si benn sport bu ñuy wooyee king boxing. Mhm. waaw muy mooy loolu. Mhm. yàlla def ma nekk ci làmb. Mhm. ba ba ba ba tubaab bi gis Bou Siteu xam nga nu muy lëmbee internet bi xam nga Bou Siteu bu gisee Bou Siteu bu defee émission gaa yëpp di ko partager mu gis daal jeunesse bi. ni ni ni. ni nga xam te ne jeunesse bi noonu lañ mel si Bou mhm. mu ne nag Bou Siteu mi il ma que dugal ko sama esport ndax bu jugee jeunesse bi ñëpp ay jug topp ko waaw maanaam man dama nekk nit koo xam ne ma nekk mu mbëru koñ boo ah. xam te ne bu jugee nii koñom mobiliser gars yi génn. Ah, man mbëru loolu la may succès nag. waaw kay man euh, mbëru loolu jarul xeeb nag. waaw mais loolu jarul xeeb. mais ah. xam maanaam lii nii dafa nekk loo xam te ne ñëpp moom la ñuy ñaan nekk si làmb. nekk si làmb kenn ñaanu nekk si làmb ngay jug sa waa koñ rek di la topp. Mm. ñaan nga yàlla boo jugee àdduna génn topp la. Mm. te parce que Bou Siteu tubaab bi loolu la gis ci Bou Siteu. Mm. moo tax da bës ne ko booy bii nii moom bu jugee dafa populaire te bu jugee jeunesse bi dañuy génn topp ko. Hmm. ndax boo xoolee keroog rek le 6 le 6 bii paase 6 juillet bi. ni ma def place du souvenir. sama combat bi passé ni jeunesse bi ñëpp génn ñëw topp ma topp Bou Siteu di may dooleel fépp waaw loolu nag sant yàlla la quoi mais mais sa combat bi passé da nga ci jëlee défaite dégg naa la itam ngay wax ni euh, fay nga ci xaalis bu bëri ci ay sëriñ ba combat bi desee benn fan dañu ñëw am lu ñu la wax euh, mu mel ni euh, comme ni nga koy waxee waroo tas yaakaaru jeunesse bi yaakaar <laughs> daal di tas rawatina nag nga am ci ab dese ñu koy ñaanal bu baax a baax sa mag ah, jooju génn àdduna yàlla suñ borom yërëm ko taxare ko mm-hmm. àjjana yàlla bàyyi leen fi ngeen yàgg ko ñaanal ci barke alxuraan waaw sëriñ yeeg xaalis bi ngay mm-hmm. def ci làmb ji mm-hmm. te parfois defet am après ndax yaakaar du xaw a tas tuuti sa diggante ak ñoom waaw non loolu moom pour man du yaakaar ndax pour moom damay yaa damay jàpp ah, ne. lépp yaakaar mais sëriñ moom moo ñu fa yóbbu ngir ñaan ñu ñaanal la ci yàlla. pour nga mën a am ndam tamit ki may bëral tamit ki mais tamit ki may bëral tamit day dem tamit dem ñaanlu ji. <laughs> Ah. day dem ñaanlu ji préparer combat am. Hmm. ñëw man sama combat pass sax préparer wu ma ko mystique. ndax ñëpp xam nañ ni ñaari combat laa jëloon damaa jël combat kickboxing maak Sonko Tine mooy bi Eric Favre tëggoon la 6 juillet bi. Hmm. ak Baye Ndiaye bi la 30 bi. Hmm. mooy sama combat bi mujj bi arène. Hmm. waa maak Papa Bari Bari ñëpp xam ne combat bi Abidjan la ma fekk. ma demoon Abidjan doon fa préparer king boxing bi doon préparer tamit lamb ji nekk suma ay entraînement mhm. xam nga dem fa doon pratiquer jàng fa xeex mhm. waaw ba mu ñibbisee mhm. presque trois jours ñu tàggama suma mag waaw suma mag góoraa di ko ñaanal mu ngi woon Espagne fa la décédé ba mu ñëwee ba ñu ne suba la combat bi la génn àdduna samedi boobu teewul nga dem bëre ji bëre yow warul woon ñaan waa CNG pour ñu jéem a amul ñaan combat bi CNG ñoom règlement lañ lañ la ñuy. bi. waxul ci boo xam te ni yow sa sa fekkee sa yaay moo génn àdduna wala sa jabar wala sa doom loolu doo bëre. Hmm. mais bu fekkee koo xam ne ne ay sa mag wala sa sa rakk wala affaire yooyu ñoom réglement bi loolu moo si nekk. Hmm. mais man règlement bi laa topp rek mais Bou Siteu moom ñëpp xam nañ ne combat bi passé nekkul làmb. Hmm. nekkul loo xam ne sax dinañ ko boole si ay defetam wala dara ndax. ma loolu man dama ñëwoon ndax mais yow xamoon nga ni doo doo kon doo am victoire ci làmb ji. man combat bi maanaam bu yàggoon sax combat bi bu amoon une minute sax kon kon kon man ma xam ne man sama mag bi may jooy man jooy bi dëgguwul si man sax sama gaañu tey ñu ne la suba da ngay xëy bëre far force. Mm. waaw ñu ne la lii moo nekk si règlement bi mais man dama topp règlement bi dama doon remplir sama contrat rek moo tax gisoo ba arbitre bi sifflé sax nekk ma foofu sax di yàggal combat wala dara. Mm. waaw lu yàlla def noonu la quoi. d'accord léegi bu ñu ci làmb ji king boxing bi yaa ngi ci commencé di def ay performance mhm. euh, léegi ma gis la yaa ngi euh, di défier ki nga xamante ne ni ku ne king boxing mhm. fii ci Sénégal sa xel day dem ci moom muy rëg-rëg mhm. te gis nga bër ki démb ni mu def buus bu euh, kii këccëb boucher yow nga taxaw di ko défier. Mhm. bëgg bëgg bëgg bëgg jàkkaarloog moom est-ce que loolu du metti si yow tamit euh, bu. noonu loolu du metti si man ndax ndax damaa xam ne sport yi bokkul xam nga bu nekkoon làmb sax ñu bëri nañ téye seen gémmañ ne bu Siteu mi xanaa day xaru. Mm. mais nekkul làmb xam nga sport yi dafa bëri. Mhm. king boxing la. Mhm. waaw dama man si kii boxing bi laa laa laa ne kii ni buñ buñ xeexee si king boxing ma ma duma ko. moom rëg-rëg. waaw ndax damaa demoon Abidjan jàng fa xeex man Abidjan nekkuma fa woon di tëdd di nelaw de. damaa demoon Abidjan dem jàng ji xam-xam jàng xeex ñu jàngal ma ko mu nekk sama bopp. Hmm. jàngal ma sportu king boxing. yow kon fi mu toll nii yow ku ñëw rek baax na amul problème. non moo instant ku ñëw baax na rëg-rëg sax wallaahi bu ñu ma ko boole woon maam si king boxing bi parent du lamb de. nekkul foofu jàpp yenu dóor de. kii foofu amul jàppante amul bëre. xanaa kii bu mujj bi ak Boucher yow gisuloo ko. comme boobu la gis naa ko bu baax. gis nga ni mu ko def mais mooy xool Boucher di ko tëkkaleeg Boucher te. ah mais dama lay wax rek Bou Siteu ku ko xam jàmbaar bi nekk ci moom ak fulla ak fayda bi nekk ci moom mais kenn du ma xool naa da mooy tëkkale ak ay buuse sax bokkuñu sax. mais yéen ñaa est-ce que seen combat ko tëgg sax. comme yow da ngay ne da nga doo yaag moom du ngeen du ngeen doo doo moroomam. kan moom Bou Siteu. non man kay instant man moom sport laay def man moom instant yi sport laay man bàyyiwuma fi kenn. képp ku kuñ ma tëggal sport woo ma ne ma kar ak diw man pare naa xanaa moom mu tàppet bañ. tàppet képp ku mu mën a doon nag man damay man man man espoir laa fi nekkal. Eh. ba pare su ma jugee jeunesse bi dañuy jug te jeunesse bi waaw mooy loolu. Mm. jeunesse bi dañoo yaakaar Bou Siteu. Mm-hmm. waaw kon mooy loolu man caaxaan taxu waruma de. waaw ba pare xama rek waaw famille moo nekk suma ginnaaw quoi xam nga. Mm-hmm. waaw famille moo nekk suma ginnaaw te xam nga. Mm-hmm. waaw am na yu bëri yoo xam te nii xam mooy loolu daal war naa mën a. waaw. Hmm, loolu def performance daal incha allahu rabbi mhm. euh, combat yi mujj yi ñu gën ci xam bu Balla Gaye ak Tapha Tine mhm. avant combat bi gisoon nañ la ngay jox ay conseils mhm. moom Balla Gaye euh, combat bi am. Balla Gaye daal di daan. Euh, ban jàngat nga am ci ci ci ci boobu le mbaa ak victoire bi nga xamante ne nii moom mm-hmm. Balla Gaye am na ko Tapha Tine itam daal di ci ñàkk. ñu doon def loo xam ni euh, daanaka ñoom Baye Ndiaye ñoom ñoo ko tëggoon. ban appréciation nga ci am ak euh, victoire Balla Gaye waaw victoire bi moom waaw victoire bu Balla Gaye maanaam victoire bu géejawaay la sax laay wax. Mm. waaw ndax bu Siteu bu génnee dem di bëre ji géejawaay lay représenté. Mm-hmm. Balla Gaye 2 bu génnee di bëre ji géejawaay lay représenté. Mm-hmm. benn la rek waaw victoire am ndamu géejawaay la. waaw ndax gars yi soxla woon nañ ko. Mhm. waaw mu doon bëre combat boo xam te mu doon bëre ku si mel ne Tafatine. Mhm. Tafatine moom ñoo nekk doon Abidjan di mhm. préparé ndoo suñuy combat. waaw ñoo fa nekk doon doon préparé ndoo mu nekk grand frère bu baax boo xam te ne xam nga Tafatine du siggi sax xool bu Siteu mu nekk grand frère bu baax waaw Moustapha maa ngi koy ñaanal di ko wax ni décourage. waaw di ko ñaanal combat yi nii di ñëw yàlla defal ko ndam. Mhm. waaw ndax moom dix ans la toog daanuwul. Mhm. waa dix ans la toog téye lamb ji dix ans loo xam te ne benn mbër bu mag muusu ko fi def. Mhm. waaw kon tey bu ñëwee bëre ak Balla Gaye 2 Balla Gaye 2. Ah, ni ko ah Yékini nag. ah Yékini waa Yékini waaw. waaw Yékini tamit yàgg teewoon na lamb mais ku si mel ne Tapha Tine bosu Tapha Tine leen gis. waaw ndax ah. waaw moom boo su tafaatin la gis ndax tafaatin moo fi toog 10 ans mbër daanu ko mbër yu mag yëpp duma leen daan leen mais mais nii itam ni mu nekk roi des arènes ci ay at di bëre kenn mënu ko woon daan itam mais boobu ay temps ay pas ñoo fi nekkoon rek manga deux yi waaw gis nga yaa ngi nii tudd manga deux voilà ay pas rek ñoo nekk nañu ay roi des arènes donc yow kay bul wax ne moom tafaatin ni mu fi def kenn defu ko fi parce que am na ay ennemis yi nga xam nii li ñu def daanaka. mais bokkul jamono jooju noonu boobu mbër bu dëgër amagul woon. ah comme mbër bu dëgër bu nekk xale def ñàbb amagul woon comme ah, temps yi ñoom Tyson nag. ñoom Yékini ñoom Bombardier ñooñu ñooñu ñooñu ñu ngi dugg seen fin de carrière jamono jooju. ah lu ñu mën a wax ay mbër lañu woon. waaw ñooñu moom ay mbër lañu woon mais ni jamono ji muy téye roi bi boobu ay paa ñoo fi nekkoon ay anciens lutteurs. ay anciens lutteur ay ancien lutteur ñoo fi nekk. jamono jooju Bombardier lu ko def ancien lutteur. mais ñooñu ñëpp ba léegi ñu ngi gis ni mu ngi lii ñoom Gris Bordeaux ñoom Tyson ñoom keneen ak keneen. ñu ne ñoom eh, ñëpp ay mbëru démb lañ. ñooñu maanaam ñooñu ñëpp ba nii nii nii sax ñooñu dañuy ñiit làmb. <laughs> wallaay ñooñu dañuy ñiit làmb ba léegi nii dañuy ñiit làmb ñooñu ay ancien lutteur lañ ay ancien mbër lañ ñooñu heure bii nii waroon nañ fekk xam nga mooy loolu ah kon Gris Bordeaux moom loo ko wax moom ba léegi mi ngi ci làmb ji. ñooñu ñëpp ay ancien lutteur lañ. kon moom day ñiit moom itam. ñoo ñëpp dañuy ñiit làmb. yi i kii Eumeu Sène. ñoo ñëpp mais yow Eumeu Sène xoolal rek mais Eumeu Sène. mais Eumeu Sène mooy mooy mooy mooy mooy bête sa waa ji de. fu mu taseeg moom mais loolu yëpp dëgg la mais ñooñu dama bëgg ñoom ñoom ñoom xam nañ ni sax ñoom ay mag lañ. ñoom xam nga la moo leen dimbale Alioune Sarr avant mu fiy jógee te ñu bëri dañuy fàtt loolu Alioune Sarr xam nga moo fi nekkoon président CNG yàgg ci CNG. Mhm. moom moo fi yokkaloon mbër yi ne ne ne léegi mbër yi mag yi dañ leen di yokkal. ay ay ay baabooy temps lañ yokk sax ay baabo baabooy ku nekk ñëw duggaat ci làmb di bëree. mais baabo yi moom ñëpp xam baabooy moom dafa dem ba xam ne moom paala sax moo tax mu teel a rasu da instant yi gisatoo baabooy ci làmb d'accord léegi euh, euh, yéen a ngi ci làmb ji léegi euh, làmb arène naka la mën a amee ñaari couronne ñu ne fii roi des arènes ñoom Aziz Ndiaye Baye Ndiaye dem wuti seen couronne ñoom itam dikk ne dañuy créer mhm. empereur loolu est-ce que nekkul du luy suuxal roi des arènes bi parce que ñaari roi mënul am ci ci ñaari roi moom mënul am ndax benn roi moo am ndax benn roi bi ñëpp xam nañ ko roi bi gis nga Yékini moo téewoon roi bi Balla Gaye ñëw jëw jël ko ci Yékini Bombardier ñëw jël ko ci Balla Gaye numéro 2 kanan kan ñëwaat. jëlaat ko ci non Eumeu Sène. waaw Eumeu Sène xam nga. waaw ku nekk ba bala Gaye de ji jaar jël. roi waaw léegi naka la ñuy mën a amee roi des arènes ci arène bi. Mhm. ñoom Aziz Ndiaye dem wuti seen couronne. ne ñoom it dañuy créer loolu laa lay wax ne la est-ce que nekkul du nara loo xam dafay ñëw pour suuxal roi des arènes bi. non maanaam loolu du roi xam nga yow yaa ngi naan ñu ñu créer roi ñoom créer wuñ roi non empereur lañ mais daanaka benn la rek. ndax couronne moom mu ngi mel ni la rek. mu ngi mel ni yow nga tëggal ma combat maag comme comment rek nga tëggal ma combat maag diw rek. nga nga nga nga ut sa benn affaire rek ne ne ne lii tuddee naa ko ampleur wala dara comme noonu la rek. mais loolu. du yow gisoo si benn inconvénient. non maanaam loolu genre coupe la comme comme nga tëgg làmb rek teg benn coupe tuddee ko benn affaire comme noonu la rek mais mais ñëpp xam ne ni Modou mooy roi des arènes mais mais Balla Gaye 2 li li mu gagné li mu gagné loolu mooy ampleur mais ku ko gagné mooy ampleur mooy ceinture bi. ceinture bi ak kii bi ndax yow boo xoolee est-ce que nekkul bàllal ni mu nekk sa waaye moo tax ngay jéem a defar affaire bi mais. du cadre defar sax ndax ampleur nga wax roi des arènes dafa am ampleur am man maa ngi nii damay. rey pour nekk roi des arènes mais mu nga xam ne yéen yéen a ko bokk. muy am fee couronne roi des arènes. di am fii couronne empereur. Mm-hmm. loolu loolu. maanaam ampleur mu mën a yàq est-ce que yéen maanaam gars yi ñooy rëyal affaire yi di garaawal affaire yi xam nga mais affaire yi maanaam benn coupe la woon grand combat la woon ñu teg benn coupe tuddee ko tuddee ko kii ku si mel ne Aziz Ndiaye dem ba siin defar affaire bi gars yi defar si lu doy waar dugal ci ay centaine de millions. Hmm. waa ñëw teg ko. ba pare na leen képp ku képp ku daan chaque weer bu dee ñu jox la. mais les CNG moo ko reconnaître amateurs yi ñoom ñoo ñoom ñoo reconnaître ne. roi des arènes ba tey ah, nii sax CNG sax reconnaître sax. ay ay ay kii. roi des arènes. ro non comme bi ngay wax noono waaw loolu laa la wax ma ni la roi des arènes bi. waaw xam nga ñëpp xam nañ ni CNG moom mooy lii. amateur yi tamit nangu nañ ni roi des arènes bi mi ngi lii. léegi mhm. su fekkee ne ab famille ñoom ñoo dem jële fee loolu laa lay wax. ne la est que nekkul du lu mën a yàq ci beneen wàll yu dara. noono du si yàq dara. Ah. mais Modou Lo moom ñëpp xam nañ ni moom mooy roi des arènes. waaw Modou moom mooy roi des des arènes benn la fi muy Modou Lo. mais am nañ droit am promoteur am na droit tëgg combat. mais Balla gay daf ci mer parce que bërki démb yàggul dara am na vidéo bu ñu bu ñu gis muy provoqué Modou loo di wax ne ki ngeen di wax roi des arènes man maa ko daan. waaw waaw lool ci xeetu luy xaw a kii ndax moom moo ko daan ñaari yoon mais tamit Modou Lo tamit dafa bay waaram nekk ci yoonam nekk ci yoonam ba jël roi bi des bi nga xam te nii Balla gay 2 moo ko jëloon hmm. waaw d'accord kon amul problème comme gisoo si <laughs> inconvénient rek d'accord amul problème léegi par rapport ak CNG gis nañu itam yenn mbër yi ñu ci mel ni ñoom Balla Gaye suma ma juumul euh, Ama Baldé ñuy wax ne liñ leen di dagg dafa bëri bay wax ay million lay toll mm-hmm. euh, Balla Gaye dem bay wax ne loolu genre sàcc la mm-hmm. yow loolu mm, mës na la dal ak jàngat bi nga ci am lan waaw mais man xam xam nga ñun moom ay mbër yu ndaw lañ ñun ay mbër yu ndaw lañ daanaka sax ñun ñun suñuy wax sax ñun mbëri yu ndaw yi ñun suñu kase sax demeewul noonu parce ñun ay 1 million 500 lañ ñuy fay ay 2 millions ñun yooyu boo ñu si dagg dagg bi du mooy loolu maanaam ñun duñ def sax loolu luy war a sax nga dagg ñu yenn dagg yi. Mm. mais mais mbër yu mag yi moom ñëpp gis nañ li leen di fay ay centaine de millions lañ leen di fay bokkul. mais ñoom li ñuy ñaawlu mooy am niñ koy defee ndax motif yi daanaka duñ leen wax lu waral dagg beeg euh, xaalis bi ni muy bareeg yooyu ak fan la jëm fan lañ koy wax ñoom li ñuy ñaawlu loolu si la bokk. waaw mais xam nga xam nga CNG tamit xam nga CNG tamit gars dañ ko fee teg. teg fi CNG xam nga utal ko président gu si mel ni Bira Sène ñoom ñu nekk CNG ay max CNG nekk fa ay ñambe ñoo ñu nekk fa xam nga di di di di nekk ci làmb di di di xool li nga xam te ne nii mooy ay règlement yu ñuy teg mbër bu ci wàcc sa règlement dang ci daan bi moo la ciy fekk mais ñun nañ nañ nañ respecté suñuy règlement rek d'accord waaw nañ respecté suñuy règlement ba pare xam nga waaw CNG moom ñoom ñoom ñoo fi nekk mhm. waaw ñoom ñoo fi nekk te xam nga ñoom li li mbëri di mag yi di ñaawlu tamit ñun tamit mbëri ñoom maanaam maanaam ñoom tamit dañuy bàyyi xel mbëri ndaw yi. d'accord waaw nekk fii di di kaasal sa bopp rek fàtte mbëri ndaw yi tamit yooyu pour man yooyu amul sens mhm. waaw pour man yooyu amul sens ba pare tamit xam nga waaw bëgg naa tamit ñu gën a respecté waat CNG. Mhm. waaw dañ xam ne xam nga ay kilifa ñoo fa nekk xam nga bu ñuy wax tamit ñuy xam ni ñuy communiquer quoi. d'accord waaw léegi ñu ñëw euh, euh, bu ak euh, jeunesse bi. bu temps yi la si ginnaaw yaag patriote yi da ngeen fi amoon problème te yow yàgg nga wax ni da ngay xeexal patriote yi yow si projet bi si ñi koy xeex ci nga bokk ba tey ci nii gars yi jël réew mi mm-hmm. nga mere leen ndax dañoo defal kañot tafa mbër yow kenn defalu la ko yow war nga war a mën a mer ci loolu yow kon lan moo la taxoon di xeex moom non du cadre loolu ndax buusita moom ñëpp xam nañ ni buusita li mu daj ci projet bi daj ci projet bi xeex xeex xeex toog muy dox mu juge fii man man man projet bi sax man li ma si daj yow ñi ngay wax noonu sax kenn daju si projet lu mel noonu yow euh, man dama yàgg si projet bi yàgg xeex si projet bi yàgg xeexal jeunesse bi yàgg waxal jeunesse bi li nga xam te ni nii kumba am ndey kumba amul ndey yi amoon ci réew mi may Bou Siteu toog yàgg kaas lu mel noonu kon tey dafa jot Bou bu xeexee li muy xeex mu jaral si lu nekk ba ba nga xam te ne ñu si bëri ñi nga xam te ñoo nekkoon ci nguur bi of bu Siteu kenn recevoiratuma xam nga jot dafa jot tamit xam nañu kon xam ni Bou Siteu. waaw yow lan moo tax ngay mer ci cagnotte bu ñu defal Tapha Mbeur ne defaluñ la ko ba mu jaral la nga li mu daj ci bi man dama see ko raw. ba léegi yow loo daj ci projet bi yow lan nga daj ci bi ak kañ nga commencé xeex nañ ko man jeunesse bi la moo tax ñu ñu naan Bou Siteu mbëru jeunesse bi. ndax dama yàgg a toog di xeexal jeunesse bi man ay ay ay projet yi sax bàyyi ma ko xel maanaam li ma doon xeex dafa bokkoon si li nga xam te ne mooy loolu. mais gars yi ne nañ li tax nga bàyyi leen affaire bi yow da nga jàppoon ni affaire intére la. non du cadre defaruñ lenn li moo tax nga xëy xas leen ba ñu ràpp <laughs> bàyyi leen. non du cadre ay xax xasuma leen sax ndax ndax man damaa génn wax rek. Ah, li nga wax li nga wax ministre Birame Souleye Diop. non non non gars yi dañ na ma Birame Souleye Diop pour affaire yooyu noonu pour pour pour ma dem si moom pour mu jàppale ma jëndal ma cinq bloc man leen man soxlootuma yooyu noonu te parce que Bou Siteu li mu daj ci projet bi Tapha Mbeur daj ko ci projet bi ñu ñu Tapha Mbeur am combat maa moom ñu bokk benn journée bu ñu war a bëree hmm. ñu ñu gars yi jël Tapha Mbeur defal ko cagnotte jàppale ko jàppale ko ay centaine de millions ñu ñu seetaan Bou Siteu fàtte Bou Siteu fàtte ni. Bou Siteu Bou problème la am ba ñu war ko mën a defal kañot. da nga amoon problème li daj ci projet bi man loolu laa daj ci projet bi kon dafa jot patriote yi bu ñuy def kañot ñu ñu fàttaliku ni Bou Siteu mii kat am na lu mu daj ci projet bi. ndax moog Tapha Mbeur ñoo bokk benn bis bu ñuy bëree. mais boo defee li ngay def xaw ma boycotté Bou Siteu. mais bu yow yaa wax fii léegi toog muy dox bi ngay bañ. léegi nga bëgg mais toog muy dox mais laa la wax mais kon kon la moo tax ñuy def ay kañot mais la moo tax ñuy def ko di defal Tapha Mbeur di bàyyi Bou Siteu mi nga xam ne dafa xeex projet bi daj ci projet bi lu nekk yaa nga xeexal Ousmane Sonko kenn gënumaa bëgg Ousmane Sonko xam nga kon kon kon kon dafa jot bu ñuy def cagnotte maanaam ñu ñu ne ñu ne ñu ne nañ defal cagnotte bu Siteu ah, mais peut-être li ñu waaw peut-être peut-être li ñu gis nii li ñu gis daanoo journée boobu na xam nga maa ngi moom yëpp lañ daan la nga doon dégg si kii bi ay aadumoo ku nekk daan nañ mbëru mbëru mbëru mbëru kii patriote yi daan nañ mbëru Pastef yi rek nga doon dégg amee ah, kuy bëre kay mooy daanu la. waaw kuy bëre mooy daanu mais am na loo xam boo koy defal boo koy defal ñi ñi ñi nga xam ne dañoo bokk ci gétt gi bul bul boycotté kenn ki mais mais boo booyee côté rek day day mel ni buusi te Komaro si wéetoon de. dafa am ah. bër gars yi jàppale ko normalement ñu ñu ñu gars yi seetaan Bou Siteu xaw ma boycotté Bou Siteu moo taxoon tey man ma génnoon mer ne ne ne moo lool bu ma fi kenn waxati ay waxu patriote mais kon yow li ngay xeex la kon loolu laa ko wax ah loolu yow kon li ngay xeex lal la parce que dafa luñ la kañoon rek nga war a mer ne tamit ah loolu la rek xam nga rek yow kay li nga nekk da nga ci war a fidèle ak lu mën a xew da nga war. dama war a fidèle mais tamit dama bëgg tamit ñuy yamala pour ëllëg en ëllëg. bu ñuy dafa da di cagnotte ñu xool bu Siteu kat am na lu. waa léegi waa léegi naka la ñuy defalee cagnotte ku nga xamante ne ni sénégalais yi au vu de tout le monde ñu ngi gis ni moom ci luxe di wax niveau bi yéeg na dem fi Dubaï. waaw mm, ànd ak Aziz Ndiaye ak ak ak ak ak ak Baye Ndiaye. ah nga nekk ci ci ci ci ci luxe bu nga xamante ne ni otel bi nga nekkoon yaa ngi doon wane ne xool leen fi ma ne. niveau bi dafa yéeg booy naan sa café yaa ngi ñu koy wan kooku dañuy jàpp ni kooku amul jafe-jafe moo tax euh, pour ñoom peut-être looloo waral ñu la kañotal. ndax yaa wane non yooyu moom kenn du ko kii ay ay ay yooyu Bou dafa nekk léegi si ay loxo yu wóor ak yooyu. ah mais yaa ko wax. mais dëgg la si ay loxo yu maanaam guddi si ay loxo yu wow kongu laa nekk. si loxo yam mais si ay loxo yu wóor rek. ay loxo yu si mel ni ku si mel ni as ndaw ndukumaan suma papa. waaye ku nekk ci loxo yu wóor nan lay soxlawee. xamalu as ndaw ndukumaan nekk suma papa bu baax. ñëw woo ma ba bureau am recevoir ma yëkkati un million may ma ko ne ma damay woo Adja Tall Ndoukoumane mu defal la contrat ngay ngay ngay publicité kii original tey ji original fépp fu mu toll si réew mi Bou Siteu am na lu mu si liggéey te parce que xam nañ ni Bou lépp lu mu wax rek gars yi dugal seen loxo xam nga moo loolu. waaw kon àddunaa ma bëgg. waa loolu moom kenn werante waaw man kilifa yi. maanaam man guddi yi nii wallaahi. waa léegi man bëgg naa xam ci loxoy wow koŋŋ yi ngay wax ne ci nga ne. ñam la. non muy kilifa yi nekk ci kilifa yi ngay dégg ci réew mi rek. ku si mel ni suma papa Adja Tall Ndoukoumane suma maman Adja Tall bu aas ndaw Ndoukoumane. waa léegi yow yaa ngi ci loxo yi wow koŋŋ lan ngay doyee kañot kon. mais lu tax ma doyee kañot. Ah, mais yaa ngi ci loxo yi wóor. mais maa ngi ci ay loxo yu wóor mais <laughs> réew mii nii mais mais mais Bou dama war a dépasser yenn niveau yi nii Bou Siteu war na mu war ma dama toll si niveau boo xam ne dama war a mën a yor sama mais yor ay moto yoo xam te moto bii ma yor nii rek patriote yi ñoo ma ko jëndal. un million. ah kon kay yow waroo mere patriote yi nag. mais non non non merewuma leen woon sax mais dama. la kañ lañ la jëndal moto bi. ba ba ba affaire boobu paase. ah. ba ma génnee kon kon yow da ngaa da ngaa ah après si la si la ma benn patriote bu baax bu nekk si diaspora bi ne ma lan nga bëgg xam nga ñu waxtaan man ko man lii ak lii laa bëgg. ah kon kay yow yaa ngi gis sa bopp ci affaire yi. mooy loolu mais yooyu noonu yëpp dafa nekk yoo xamante ne gis nga gis nga ndaw bu nekkee ci ci ci ci réew mi di am lu muy apporter réew mi. Mm. kooku dafa jot gaa yi gestu ko jàppale ko. mais koo xam te ni xam nekk ci ay moto yoo xamante ni ma sama niveau ñëpp xam nañ ni sama niveau instant yi war na dépasser ay moto. ah mais léegi waaye xaalis bi ñu lay fay yow kickboxing bi fayuñu la ci ay millions. mais yooyu noonu yëpp sama métier la. xaalis bi foo koy def. man dama war a yor ay milliards man maanaam guddi ni man dama war a yor dama war a am sama compte dafa war a mën a am ay milliards parce que dama ko liggéey ci réew sama ay comme di tuuti bët nii mais mais mais mais bu Siteu est-ce que nekkul tamit nag ni gars yi def ba am milliards mooy dañ ko liggéey ñàkk ko xaaruñu ci koo xamante ne nii dañ leen di jox weer dama man li may maye rek weer boo ñu ko calculer day day ëpp ay million ah mais bu Siteu waaw kon kay kooku oto waru nag jënd oto waru laata. ankay euh, mais mais. wala da ngay xaar yi jox la ko. non du cas mais man maa ngi samay métier maa ngi samay contrat yoo xam te nii tey jii nii. Hmm. képp ku ma ci matal rek. boo ba ma fay sama reliquat mun naa si jënd oto. waa léegi sama niveau moo dépassé ay. oto mais yow yow gars yi nee nañ da ngaa bëgg lu yomb ay oto 4 da ngaa sama niveau moo dépassé oto 4 millions. oto lan ay ay oto 20 millions laa bëgg di dawal. Hmm. waaw ndax sama niveau moo dépassé ay oto fort yi nga xamante ni mooy loolu. ah ma rek man sama niveau dafa war a yéeg. dafa war a yéeg te fii boo fi toogee di noppi sa sama niveau du mës yéeg. waaye yow yow dafa wàcc. ndax yow waa defal nànk rek li wàcc sa niveau. xale yaa ngi koy wax nee nañ Ama dafa wàcc sa niveau. moo yow bàyyi ma dafa yóbbu sa bës. waaye Ama Dia Ama Dia la toj. ah Ama Dia la toj. Ama ah, daa mos a yéeg avion. mooy mooy man yéeg avion wër Sénégal wu déggal wër wër wër monde bi mais ay Ama Dia mu yoo xam te ne musuñu yéeg avion. ah mais waxuma waxu yéeg avion xam nañ ni Ama Dia moo téye bës bi léegi waaye téewul dara. boo nekkee Abidjan la téewoon bës bi ne xam ne Bou Siteu génn na Sénégal moo tax mu nekkoon fii di balballu mais booy boobu fu ma taxaw fu mu taxaw Bou Siteu taxaw fa du ŋaang ndax xamante nañ ñun ñëpp banlieue bi leen dëkk Ama Dia fu ma ko fekk muy ratatati di wax bu ma gisee danaan miig. ndax day ah. xam ne borom réew mi ñëw. tase mas ngeen tase. <laughs> musuñu tase. waa léegi mais mais fu muy wax bu ma gisee day noppi te parce que xamante nañ. ci banlieue bi lañ dëkk ñun xamante ne suñu biir de ay wax jee fi nekk nii rek ngeen di garaaw ay Ama Dia Ama Dia Ama Dia tojul fenn. Hmm. wallaahi. waa léegi du ñu jeexal te waxuñu ci sa diggante ak buuse këccëb. temps yi la si ginnaaw avant veillu élection yi amoon ngeen fi ay jafe-jafe nga génn wax ne dañu dem si kër benn ministre candidat la woon sax d'ailleurs mën naa ko citer muy Amadou Ba. ñu jox leen Sénégal ñëpp xam loolu sax. ba ñu yóbbu leen ba ñu yóbbu la cybercriminalité nga ne naroon nañ la tëj. loolu nga jël ko ba eh, eh, ko eh, féetale. ne xeex ak xeexal Ousmane Sonko la ay ay ay ay pelantu tàppet la sax. ah xam nga am nga pelantu yoo xam ne nii yow mooy loolu pelantu boo xam ne man man ba tey dew ma wuyu ji. mais yow yooyu ay ay pelante yoo xam ne mais gars yi ne nañ xofoon nga de da ngaa da ngaa da ngaa da doon kii si suuf di baalu waaye dégg nga loolu du pelante dara xam-xam loolu ñi ñi ñooy wax ay kii wallaahi loolu du pelante sax amu fa te parce que kooku maa ngi moom sékkuñu sax lu luy war a sax mu may dem di ma maanaam dégg lu ma la wax ak yóbbu la si yoon ba pare yaa ngi ñëw ni di tooña affaire bi noonu la demee moom moom fi mu demoon naan daf may jéem a sax foofu ba mu fa demee bureau bu mu dugg foofu ñu fa nekk ñëpp Bou Siteu rek la ñuy topp. nee na nee na chef xarma chef xarma maa ngi lay bëggee bu baax borom cybercriminalisation <laughs> chef xarma ak chef ndooy borom tëngeej. maanaam moom moom bureau bu mu dugg ñëpp Bou Siteu la ñuy topp man maay borom réew mi. xanaa xaw ñu bëri wallaahi dañuy kii di. non nekkoo borom réew mi nag. borom réew mi moom ñëpp xam nañ borom réew mi. boo demee dikk chef Sarr la. maanaam dig bureau boo dugg tamit ñëpp kilifa yëpp Bou Siteu la ñuy topp ba mu demee cybercriminalisation bureau bu mu dugg ñëpp ne ko ñun fii ay fans Bou Siteu rek a fi nekk ah. gars woo ma xaw ma xuuxal affaire yooyu. léegi yow fan nga teg ne yow yaay borom réew mi. mais maay borom réew mi man la gars yi bëgg policiers yi man la ñuy topp fu mu toll nii sànq ba may ñëw dañ na ma bu moto yaa ngi policiers yaa ngi feeri jàpp moto yi si si kii rond kii bi mooy fi ñuy jaayee oto yi noonu. boo wàccee OMG policiers yi fees fa dell di jàpp ay moto man leen wallaahi du ma tourné damaa foncé ñëw ba ma ñëwee ba foofu ñaari policiers ñëw ma gis rek ne mooy eh kii kala mbëru bi loolu moo lay woon ni Bou Siteu man alkaati yi Bou Siteu la ñuy topp. mais borom réew mi nag Sonko la. mënoo nekk borom réew mi. loolu patriote yi Ousmane Sonko mooy borom mi moom la. xale yi di ah, topp non non non dëgg la nag Ousmane Sonko mooy borom réew mi premier ministre mais ñëpp xam nañ ni Bou Siteu Ousmane Sonko est-ce que xam nga ne ay doomam man nag la ñuy topp. Ah. ay doomu Ousmane Sonko bu Siteu rek la ñuy seetaan laa la wax ba si ay jabaram ak ñëpp kër Ousmane Sonko maanaam ba si limousine kii garde Ousmane Sonko. waaw numéro ma ngi fii dañuy teggante. Mm. nee na yow bu Siteu kër Ousmane Sonko yow il faut que ma ma ma wax Ousmane Sonko mu recevoir la nga ñëw fa. Mm. kon bëgg na moom ma bëgg foofu noonu. Mm. doomu Ousmane Sonko yi jabaram yi maanaam ñooñu man maay dindi seen stress. waaw man maay borom réew mi de. parce que Serigne Bamba Mbàkke ku si mel ni Ilimaan Lam jabaram mëti Lam chaque jour mu wooma ma téléphone mais xoolal fi ma demee bara te mëti Lam ñëpp xam nañu yàgg naa toog di koy tudd sax. Hmm. chaque jour mëti Lam woo ma téléphone fii. suma maman bu baax. waaw kilifa yi hmm. maanaam. Hmm. ay mbayu Diop. mbayu Diop ñoom ñëpp buusita lañ bëgg. Ah, kon léegi daal coow yi nga doon coow mer yi nga doon mer loolu lépp jeex na juboo nga ak jeunesse bi patriote yi amatuma kenn problème hmm. léegi mën nañu xaar bu Siteu ci ci ci ci ci fan yi di ñëw euh, yeneen combat yi war a ñëw yaa am nga euh, contrat wala jël nga avance ak kenn wala yaa ngi préparé ak euh, mbiri daal fa la tollu waaw non instant yi moom Bou Siteu moom nekkatuma si benn contrat instant yi amatuma benn contrat mais am na ñu may woo pour pour pour di ma proposer combat. comme ñeen waaw ku si mel ni Eric Favre instant yi amoon na benn journée boo xam ne king boxing la décembre. Mhm. ku si mel ni Yaxya Diop woo na ma ba ne ma di préparel ndax moo loolu dañ lay dugal ci journée boobu. Mhm. ndax xam Eric Favre maanaam dafa dem ba xam ne Bou Siteu mii moom moom lépp lu mu tëgg te dugalu ci Bou Siteu rek. te parce que xam nañ ni Bou dafa yor ay plateforme yoo xam te ne ni yor compte Sina Bou Siteu 23. waaw man lépp lu ma am foofu laa koy publier ay millions de vues laay am foofu. sama Sina ñëpp xam nañ ni Bou Siteu lépp lu mu fa dugal ay ay centaine de millions nit ñoo ñoo koy. kon Bou warul tas yaakaaru jeunesse bi. waruma tas yaakaaru jeunesse bi ba pare xam na ni. yow kon bu jugee jeunesse bee génn ñëw topp ko. jeunesse bi bëgg ma rek te yàlla tax du dara nag. Hmm. lépp lu ma xew la jeunesse bi génn ñëw topp mais xoolal sama combat bi passé ni ma def stade arène nationale bi arène nationale bi gisee fermé gëj naa am ci làmb. wala sama ah. loolu yëpp yaa ko waral yooyu yëpp jeunesse yi man maa leen indi stade. te te te Bou Siteu bu buñ ko dugal woon ci programme yooyu. Hmm. amaana du safe sax. d'accord ñu jeexalee ak Madji Madji 2 gis naa boobu ba tey gars yi ñu ngi koy attaqué ci défaite yi muy am saa su demee bëre. ñu daan ko ba gars yi ñenn ñi di wax ne na bàyyi bëre jabaram sax wax na ne na na bàyyi yow boo amoon tey conseil bi nga koy jox lan lay doon. non conseil bi ma koy jox sax maa moom sax ñoo bokk conseil ndax ndax maa ngi moom yëpp instant yi si si si tegale defar lañ lañ nekk nii ndax instant yi <laughs> majj majj maa moom papa booy Guinée maa ngi moom ñoo yem. <laughs> ay ay defar rek lañ lañ lañ lañ lañ. waaw loolu nekk. xam nga mu nekk loo xam te nii xam nga. Ah. mooy loolu mais man moom buusita man sama côté moom mettiwul. Hmm. ndax buusita jeunesse bi nee nañ ma toppeewutuñ la victoire te loolu la dafa neex. di risqué fu jeunesse bi demee wan la yow buusita toppeetuñ la victoire. yow loo def noonu la. waaw lu ma def noonu la. mais conseil bi nga koy jox moom. waaw conseil bi ma koy jox di ko wax ni na gën a jàpp. Hmm. ndax làmb ba mu ciy dugg tàgguwul kenn. waaw ndax làmbam siy dugg tàggul kenn. te Papa Boy Djiné xam nañ ni champion la te xam nga. ay defet yi loolu du dara. man maa ngi nii maa ngi moom ñoo yem ay defet kese lañ fees la man moom bébé Saloum ak soq <laughs> ñun essai yi ay ay essai si saako yi lañ nekk. mais bokkul Bou Siteu nag moo si nekk koo xam te ne nii moom jeunesse bi nee nañ ko yow de bu la neexee del del del daanu rek. kon kon léegi mën nañ jàpp ni Bou Siteu moom bàyyi na yoonu Nicaragua tukki bi waxatu ci dara. waaw non yoonu Nicaragua bi moom. ku si mel ne Adama Bey mu takk doomu Zeyna bi kii doomu Viviane Viviane Zeyna Ndour moom moom moom ma kii woon sax ne ma bàyyil yoonu Nicaragua beeg yépp xam nga dinaa la jàppale Mm. mais boobu ba léegi nag Adama Bey xam nga boobu ba léegi gisante wuñ gisaguma recevoir bi ma digoon. ah mais mariage bi la il faut ma affaire bi il nga may ko temps ndax day doog a marié wu. day day doog a mais tamit image toi temps yi ma fi naan damay jël yoonu ni Nicolas Garawa bi Adama Bey moo woote woon ku ci mel ni Loum PDG. yónni lum PDG na ko buusita nee ko mu mu jël yoonu Nicaragua bi teg ko ne la na jël yoonu gaal gi teg ko ne la te dama pare woon pour jël gaal gi. mbëkk ah, jël mbëkk déet waay. wallaahi mais loolu lépp gën nga. ci léegi yooyu noonu yëpp Adama Bey moo tax ma jël ko teg ko ne mais bu ba léegi Adama Bey gisaguma sa recevoir boobu léegi gisanteeguñ te xam nga ni teganteeguñ bët li may wax lum xam na li may wax bu baax lum PDG. Mhm. kon dafa jot nag mhm. nga recevoir ma. Mhm. te te te yi da am jabaru niveau. jabaru niveau si Seydina macha allah yàlla na sëy bi barkeel di la am ni félicitation Adama Bey. <laughs> macha allah ñu ngi leen di ñaanal bu baax a baax sëy bu barkeel yàlla suñu boobam uh, def ci ay xéwal yu barkeel a barkeel. ni mariage bi neex yàlla na sëy bi neexee noonu uh, ñu bàyyi la nga tàggatoo peut-être su fekkee am nga message. message bu nga bëgg a lancer waale jeunesse bi wala làmb jekk yi ni mel nga waxaale ko ci. waaw benn message rek laa lancer muy jeunesse bi daal maanaam na gaa yi jàppale jeunesse bi xam nga hmm. taxawu jeunesse bi ndax xam nga waaw jeunesse bi ñoom tam dañoo bokkoon si ñu doon xeex projet bi. ba tey tey projet bi tey ñëpp li li ñu doon ñaan yàlla ak li jeunesse bi doon ñaan yàlla loolu loo am gis nga léegi réew mi ci loxo yi mu nekk nekk ci loxo waa Pastef xam nga hmm. ñëpp yéene leen ko kon waa Pastef leen rek laa ne wax ku si mel ni président waaw président Bassirou Diomaye Faye nag gëstuwaat jeunesse bi waaw dëgg la nag yéen a ngi soog a toog mais xam nga waaw nañ nañ gën a gëstuwaat jeunesse bi daal jàppale leen waaw tout sement borom cag-cag yi mhm. policiers yi may leen jàmm mhm. waaw te loolu noonu yëpp bu si Ousmane Sonko génnee wax ci wala Bassirou Diomaye fay génn wax ci wallaahi borom cag-cag yi gars yi may leen jàmm ndax yow da ngay gis fii benn maire boo xam day teggi natt six cent mille wala un million dem jëndal ko ay doomam moto ndax ñuy liggéey. Mhm. kon ñooñu bëgg nañ seen doom baax bëgg nañ seen doom am su luñ jàpp. Mhm. kon loolu message boobu daal moo nekk loo xam ne ni xam nañ gën a bàyyi booy yor cag-cag yi man jeunesse bi rek laay topp. kase man man man li jeunesse bi wax rek laay wax te jeunesse bi nee nañ ma Bou Siteu dañuy bëgg nga ñuy jàllale loolu borom policier yi di ñu may jàmm. Mhm. ndax nga jàpp benn borom cag-cag lekk six mille mhm. kooku est-ce que wóor na les journée boobu noonu dina si dawaat ba pare teg si ay njaboot lañ yor. Mhm. kon nañ jàppale borom moto yi xam nga. bàyyi di jàpp ay moto jàpp moto warul am Sénégal. ndax fii képp koo fi gis mu yor cag-cag di liggéey rek bëgg teral yaay moo tax ñuy liggéey bëgg teral famille bi xam nga gàlle bi dépasse beeg yooyu noonu. Mm. kon ñooñu boo leen jàppee am loo jël si ñoom rek xam nga da ngay yàq sax seen journée. waaw loolu daal moo nekk message boo xam te ne buggoon naa ko jàllale. Mm-hmm. waaw di wax ne tamit ku si mel ne suma papa As Ndaw Ndukumaan. Mm-hmm. borom original As Ndaw Ndukumaan dama koy ñaanal yàlla bàyyi ko fi xam nga yàlla defal ko gudd fan. waaw ndax lu mel ni Bou Siteu nga jël ko man mu xeebu mii ñëw na ma dama lay defaral contrat 6 mois. nuyu <laughs> Adja Tall Ndoukoumane bu baax a baax a baax. di leen ñaanal jàmm. di nuyu diaspora beeg ñëpp ku si mel ne Ahmed borom noo Carolina borom kaay Mbexe. Hmm. moom tam maa ngi koy sant bu baax di sant Jéeri Joor Ndeela borom Dubaay bi ma yóbbu woon Dubaay. Hmm. di nuyu Eric Favre ku si mel ni Beus moom tamit gis nga moo ma yóbbu woon Abidjan. Hmm. maanaam man man is xam nga man sama tukki man chaque jour rek day bette. macha allah man maanaam man sama dem tukki day bette te parce que damay toog sax yenn saa yi di tiit. naan man est que man waa ambassade duñ duñ duñ duñ sama passeport. déedéet kay maanaam kilifa yi nga xam ne dañoo jug ji di di ma jàppale. ku si nekk passe bu envoyé ma sa passeport. ku si nekk di dugal pour bëgg rek ku si nekk laa la wax de. instant yi ñi nga xam te di ñoo téye samay passeport ku si nekk di si def pour pour bëgg a génnee Bou Siteu Sénégal dafa bëri. d'accord waa yenn saa yi nag damay toog di tiit quoi naan man est-ce que duñ fii sa sama passeport si ambassade yi. jërëjëf yàlla kon di di leen ñaanal yàlla defal leen jàmm. amiin gis naa yéene bi ñu jërëjëf. waaw bi di sant bu baax a baax a baax ndax eh, lii eh, eh. émission bi waroon nañ ko def bu yàgg. <laughs> dëgg la xam nga xat-xat yeeg tamit ku si mel ni Sa Ndiogou suma ah, papa suma lépp. waaw ñun moom suñu ay soppe nga waaw Soyibu ak Assane. ak Assane <laughs> ñoom moom dama leen <laughs> ndeysaan ñaanal yàlla defal leen amiin amiin amiin bu wax dëgg yàlla kontaan naa bu baax a baax ci ñëw bi comme ni nga ko waxee rek yàgg nañ ko bëgg a def mais tey jii la ko suñ borom bi dogal ñu ngi lay jaajëfal di la ñaanal jàmm yeneen combat yi di ñëw yàlla suñ borom def ci ay ndam yàlla defal lu kawe suñ njortu États-Unis yeeg yëpp ñëw incha allah parce que gis nañ ni bëgg nga li ni mel eh, yàlla juboole la ak jeunesse bi encore une fois ak patriote yi nga xam ne ñoom ngay àndal chaque yéen ñu doon bàyyi xel du ñu suivre tey ci suñu gan nekkoon bu Siteu nekk mbër ci arène bi di def king boxing mi ngi eh, attaqué nag rëg-rëg nee na moom la bëgg waaye nag yàlla baax na yàlla ci yàlla def jàmm jaajëfal itam eh, suñu techniciens yi nga xam ne nii ñoom ñoo doon eh, yembal mbir yi ba ngeen mën ñu suivre jaajëfal itam képp ko xam ne rek yaa ngi doon suivre di leen jox di dajee beneen àllarba ak beneen gan